judge for day, judge for day, some guy, Mr. Shekla, Mangi, Brooklyn, New York. Guy, take the menu of a London zapping window. Wachi inscription, ye Halley were a defi, chi election, Akusman Sonko. Wachi, um, Taubi. yak yak yu mu commencé inondation yi mënd mi wax ci accident yi ndax dañoo gis Mansour Faye ministre bi nga xam mo yor transport rek yoyu infrastructure mu génn mu wax ci ndax Kaolack dafa am ben accident bu metti bu fa am waaw nañu commencé sax nañu commencé sax ci accident yi ndax Sénégal ku xam Mr Cheikh xam man yàgg na def ay émission ci accident ba ma nekkee Sénégal man mën naa waat ne li def vidéo ci accident Sénégal amul ben chaîne télé wala YouTube boo xamné ne jël na ay waxtu di wax ci accident yi ba ma nekkee Sénégal 2016 ba ba ma fay jugee 2020 ma ñëw New York di ko continuer di ko wax accident bi mu ci am moy bu Kaolack bi mais bala bu Kaolack bi am nañ ci accident euh, euh, Touba yoonu Touba il a Touba am nañ fi accident bu metti juróom-ñetti xale dee lan moo leen rey dañu dugg si oto est-ce que du taxi en tout cas voiture particulière moo man, yonu, il a Touba bi chaque fois sama vidéo dama daan wax kuy dem bu yóbboo nga dugg ci bus yu mag yi bus yu mag bu amé choc du ñëppay dé mais auto bu ndaw camion panne ci autoroute bi Ila Touba camion bi dafa panne am na ñoo xam ne dañ ne camion bi paanul gaa yi ñu mu doon dawalee moo ëpp mais bi may mujj gis dañ ne sax waa ji jàpp nañ ko waaw ci doon dawal oto bi mu paan boo paanee amuloo triangle amuloo ay ay làmp yuy wane ne da paan nit ki di dawal ci autoroute yoo xam ne leerul éclairage bi toyul loolu moo tax ay xale daal ci dee dee ba ba mu dee est-ce que dégg ngeen kenn ŋaang déggoo kenn ŋaang man de dégguma euh, Mansour Faye wax. ne dinañ jàpp nit kii wala dinañ def nit kii wala def nit kii lële waaye bu bu Mali bi lan moo tax Mansour fay wax ci maa ngi koy doog a xam parce que man démb dama gis benn article Sénégal ñu ne Mansour Faye nee na kii ak camion malien bi ki ko def yoon dina ko topp après nag ma maa ngi naan sama xel ah Mansour Faye de def na lu rafet waaye nekk que yoo li tax Mansour Faye génn wax mooy ne population bi waa Kaolack dañu commencé woon di yakate ay camion malien Le rek motax mang sou fay wax ci ndax gis na ne li mën na indi li ñuy un incident diplomatique c'est-à-dire il peut y avoir euh, euh, des des des problèmes entre euh, le Mali et le Sénégal d'ailleurs d'ailleurs on nous rapporte qu'au Mali il y a aussi des des une série de représailles c'est-à-dire des les camions sénégalais ont été aussi endommagés Je suis en train de dire que nous parce que camions camions maliens maliens comprendre même ki fait ki ki ci camion di nelaw parce que n'a fenn ñu ne mom da doon nelaw nga nelaw ba ci kaw taxi mais defena natal tout le monde a vu les images choquantes n'est-ce pas d'un taxi sous, littéralement, sous un camion, écrasé. Quatre personnes qui sont mortes d'une mort violente. Parce qu'on nous dit que le camion les a aussi traînés pendant quelques mètres. quand des bu ñaaw la ñu dee ndax camion yéeg sa kaw comme fas diri la diri la diri la nit ñeenti nit yi fa nekkoon yëpp dañu dee ba pare ñu yeewu tey ñu ne ñu camion bi borom camion bi ki doon dawal camion bi da doon nelaw. waaw accident yàgg naa ci wax Macky Sall nag nee naa la nguur buy waaj a jeex moom waxoon naa leen Macky Sall dootul am jàmm nguur buy waaj a jeex fin de règne boo ci nekkee problème yi dañuy dajaloo fi mu nekk accident yi liñ ko doon sàggane day ñëw dooleeku ci mbënn mi nañ wax ci mbënd mi waaw bu mbënd bi jeexee euh, mbënn bi ñëw dooleeku ci xale yi lu ñu mer xale yi lu ñu mer ci li ñu jotul seen seen carte d'identité mën na mi ñeenti yoon rek la tawagum démb ba defe naa da taw ñu yow gis quartier bu mel ne ah, Parcelles Assainies unité 11 bu fees dell ak ndox nga gis ndox mi ci biir kër yi loolu lañu gisoon Kër Massar Omar Gueye daf ñu waxoon kenn dootul dootuñu gis Zodiac dootuñu gis ay gaal waaye man de li ma gis ah, Parcelles Assainies gis ko Touba ah loolu ñooñu ay saret la jël di ci dawal waaye bu la neexoon tey ñu jël gaal bu la neexoon ñu jël gaal daal di ci dugg waaw vraiment ñeent ñeenti yoon rek la tawagum waxoon naa leen Macky Sall corona bi tamit mën na ko mën na ko daaneel léegi nag li dalandoo ci Macky Sall moo bëri wax naa leen accident yi tey ma wax leen mbënd mi mbënd mi dama seetaan euh, Dakar Buzz am na euh, nu mu tuddati euh, lu ñu wane waa Dakar Buzz que web tamit dem nañu euh, ba sikap Mbao sikap Mbao fofu mu ngi fess ak ñu dugg ci benn kër Dakar Buzz dugg ci benn kër kër gi dafa fess gaz yi ci mi lal yi ci mi douche dem ba déborder bu déborder ndox bi ñew nit ñi légui Touba ay nit ci mi la nekk petit déjeuner dans l'eau ñoom ñoom loolu lañ ko tuddee petit déjeuner dans l'eau ci biir ci biir euh, ndox mi la ñu nekk di ndékki waaw kon parcelle fi ñu wane woon euh, euh, daaw waa Dakar ba fi ñu wane woon muy Kër Massar foofu wane guñ fa xamuñu ndax ndax dañ fa defar ay tuyaux moo tax wane guñ ko mais li li wóor te leer mooy Touba gis nañ fa benn bassin de rétention maanaam fi nga xam ne dañ ko tabax nga xam ne ndox mi dafa war a ñëw foofu nag moo dem ba fees daal di nag dugg ci kër yi booy nag booy tubaay nee nañ loolu ñoom par force dinañ ko fa jëlee te lii lancement rek la ñeenti yoon rek la tawagum waaw nawet bi day doog a commencé. kon bu ñu demee ba ci biir ak élection yi di ñëw xanaa nag population yi lu ñu dof dof dof dof dof dof du ñu voteel maire yi nga xam ne ñoom ñoo leen jàpp sacrifier leen bu tawee du ñu gis maire du ñu gis dara xëy na nag nit ñi dinañ am xel. ngir dem bindu ji loolu daf may permettre ma def transition ma ñëw ci ñoom Ousmane Sonko parce que Ousmane Sonko fi mu nekk nii dafa war a profité mu wax ci sàcc mi sàcc mi nga xam ne dafa am ci euh, euh, ci affaire élection yi Fatoumata Fouta Tampi laa seetaan émission am démb muy wane ay gox ci Fouta boo ay nit ñu wax ci euh, en direct que ne xale yi dañu war a inscrire du ñu inscrire qui na benn village boo xam ne dañu qui ay nit ci àll ba nit yooyu ñëw ñu bind leen waa APR bind leen waaye xale yi dëkk ci euh, sax Ousmane Sonko ah, c'est vrai que mon temps le li ko Ousmane Sonko mooy mu dajale opposition bi loolu moo Ousmane Sonko Mais si dajalee opposition bi tamit les xale yi jotuñu seen këyit ban des lay am

ñu xool lan moo nekk ci fichier bi parce que Macky Sall fu mu nekk nii dañ kaa jekku corona bi mi ngi sonal nit ñi tey rek quatorze personnes dee nañu mooy fukk fukk nit ak ñeent dee nañu ay docteur ñu ngi génn di wax Moustapha Diakhaté mi ngi génn di wax naan dañu war a euh, tëj lii yegg dañu war a confiner màggal bi dañ ko war a euh, def lii yegg mais ñun leer nañu ne Sénégal da ko tëj parce que Sénégal France lay topp te France fu mu nekk tëjul dara Amérique bii ma nekk moo gën a garaaw démb rek cent soixante mille cas Non, 180 000 cas UBS. Billahi wallahi ta'ala. Tu vendredi, 180 000 cas UBS. Et pourtant, tu dis, tu es un restaurant là, tu es un restaurant là, tu es un restaurant là, tu es un restaurant tej rew tej rew xewna mak sall xamna lol munu tej rew tej rew bu tejé rew ni ñu am luñu lek duñu am luñu nante nit ñi dañuy genn dem dañuy dal ci kaw waaw légui nak man waxon na len ko néw na len mak sall fi ba kan. 2024 du am jamm kon nak mak sall on le tient ndax fu mu nekk ni corona bi ñëpp moom lañ ko jiiñ ñëpp moom lañ ko jiiñ ndax moom moo génn def tournée économique Ousmane ko yàlla suturaal ko ba deful nemmeeku tuwa waaye nag li des ci ñuy inscrire xanaa war na des ay ñaar fukki fan ak lu topp nañu génn ñu fexe ba li am fuuta te Fatoumata Fouta Tampi wane ko te mu am ci yeneen dox gox mu dakk xale yi ñu utal leen këyit Barthélémy Diaz nee na mais carte d'identité kenn mënu ko am fii fii ak fii ak le 8 août kenn mënu fi am carte kon nag extrait de naissance nag boo ko amee ak certificat de résidence loolu war na doy ñu dem bind la te chef de quartier yi yi nga xam ne waa APR dañ leen wax bu leen joxeti euh, euh, certificat de résidence yi loolu tamit nañ ko kaas mu jeex maire de Dakar Aliou Ndoye ministre bi ñu ne moom it moom mooy joxe ay certificat de résidence te war ko joxe certification moo ko war a joxe yooy yëpp ay ay mbir la yoo xam ne dañ ko war a dénoncer ñu ngi kontaan nañ ci Fatoumata Touré Tampi ak nit yëpp yi nga xam ne ñu ngi wane Euh, euh, fi ñuy war a bindoo ñu gis mu fees dell kon sénégalais fi mu nekk pare nañu ngir jële fi waa APR lii nag lii nag vraiment neex na ci xol léegi nag mënd bi ñun ñaanu yàlla taw ñëw yow ñaanuñu yàlla taw bu bëri ñëw ngir mënd mi ñun dañuy ñaan yàlla taw bu bëri parce que bekkoor baaxul waaye taw bi bu bëree gis ngeen ni muy def tawagul sax Sénégal yëpp taa corona baa ngi ñuy rey accident yaa ngi ñuy rey kon nag boo leen bëggee loolu yëpp jeex il faut ngeen voter président Sonko xale surtout les primo votants xale yu 18 ans yi bu leen découragé dem faire boo leen fa waree fanaan ngeen fanaan fa dem leen ngeen bindu ci ba pare ngeen yoré sen télé ci poche comme ni ko Abdou Karim Gueye di waxee yor len sen téléphone ngeen di filmer lepp. gars yi like len, partagé len, abonné len monsieur Cheikh la dinaa defal benen vidéo bu ko jaree sinon ba benen jaajëf merci like len, partagé len, abonné len. merci beaucoup